li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna li sadinatan bi minan yaatal minna mbiram waajtaayu màggal Tuuba waaye di def benn virement de crédit boo xam ne ni ci li mi ngi jëm ci liggéey bi pour équilibrer suñu budget bi nga xam ne wate woon nañ ko te am laaj ay virement de crédit ñu woote woon nag conseil bi pour ñu def loolu ci taawaayu monsieur le sous-préfet Serigne Babacar Ibra ñu wate nañu ko à la l'unanimité ci ni ñu ko euh, sart yi santé ci teewaayu euh, trésor public waaye ci teewaayu teewaayu monsieur le sous loolu rek moo waraloon jataay bi yàggaluñu ko ndax dañoo ñëw xoo wax jox leen kayit yu leer juróomi fan ci gannaaw ñu jàngat ko kenn ku ci nekk bi ngay ñëw mbi li nga doon seet si ak li ngay wate si leer na la li nga war information bi xam nga ko nga ñëw bi ñu ñëwee ñu liir ko ci seen kanam ci français liir ko ci wolof tekki ko ci wolof ci kanam teewaayu sous-préfet ñoo conseil bi wate nañ ko ci kanam monsieur le sous-préfet kon nag dama leen di bàyyee ak sous-préfet de arrondissement Ndaam mu sànni ci ay kàddu wax li nga xam ne nii moom la gisee woon jataay bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan mm, yàlla dugal yóbbu ñu ci màggal gi ñu dugg ci ak bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ak alhamdulilahi rabil alamina te kenn benn ndox bañ cee am di ñaan bu màggal gi buy dem mbas mii fi nekk yàlla na ko yóbbaale ñu ñaan sun borom Serigne Touba mu ñaan sun borom tabaraka wa mbas mi jeex ci réew mi tàkk ba nit ñëpp kenn ko ne mën a dellu ci say activité ci ni nga ko bëggee woon di ñaanal jàmm ci réew mi di ñaanal xalif naa dem nag mu yàgg weer asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, man maa ngi tudd Babacar Ibrahima donc man maay euh, sous-préfet arrondissement Ndam donc euh, jëloon fonction il y a à peu près deux semaines donc tey jii mooy sama. première réunion conseil municipal ci commune Touba Mosquée donc ñëwoon fii donc comme ni nga ko xamee texte yi dañ la présence du représentant de l'État et de droit donc loolu mooy indi tey profité waale ci occasion bi pour présenter aux conseillers municipaux donc euh, et en même temps donc. Euh, def sama liggéey en tant que commissaire du gouvernement auprès du conseil municipal de Touba Mosquée donc loolu mooy li nga xamante ne bii moom la moom fi indi donc euh, di rafetlu liggéey bi ni mu demee euh, ndax sart yi nga xamante ne bii moom moo tënk conseil municipal bi bala moo délibéré respecté nañ ko donc quorum bi am na délibération yi aussi euh, li nga xamante ne bii moom la proposé voté nañ ko à l'unanimité donc euh, pour donc euh, c'est un conseil municipal boo xamante ne bii dafa doxee li nga xamante ne bii moom la yoon santaane pour conseil municipal bi doxee ko voilà. Euh, ma si jàngat rek mooy que conseil mu ngi def mu ngi def waree fa ndax bi ñu convoqué donc nit ñi ñëw nañ ba ñu am majorité. donc discussion yi aussi def nañ ko donc euh, dans la plus grande démocratie donc amul restriction amul euh, amul dara képp ku bëggoon jël kàddu jël nga sa kàddu wax sa opinion donc euh, le maire donc diriger na travaux yi ni nga xamante ni moom la ko war a diriger donc moi je considère que c'est un conseil municipal normal boo xamante ni bi moom laa assisté tey waaw waajal màggal gi moom ñu ngi ci waajal màggal gi euh, euh, commencé wuñ ci nekk tey sax nekk nañ si depuis depuis euh, li sori si ginnaaw donc xëj na ren ni ni mu demee moo tax yenn étape yi donc ñu boole leen lu mel ne CLD bi ñu boole ko ak CDD bi. après def euh, CRD bi euh, engagement yi nga xamante ne bi moom la service technique yi war a jël moom la état war a jël jël nañu ko euh, def nañu suñu réunion sectorielle yi ba jeexal leen ñoom ñëpp fi ñu toll nii secteur bu nekk engagement ba nga jëloon xam nañ foo ci toll donc comme màggal gi li si des moom bëreetul donc li ñu jot a daal mooy engagement yi am nañu yaakaar ne incha allahu rabbi yëpp dina mat donc balaa màggal bu soobee. لي سكينة بكل الجنة من داري من يا المنة لي سكينة بكل الجنة من داري من يا المنة